mais ñaa ñaa yaw li ngay bëri bëri programme Magal Touba moom doo ko raté waaw ah, Magal Touba am du ma ko raté am fi ay am fi ay papa am fi lu daal biir Touba sa diggante ak soxna moom yi soxna mooy moom suma yaay la nit ku baax la nit ku mën nitam la nit ku mën laa laate la ñaa saa yoo snabee nga envoyé ñaata nombre de vues ngay am dëggantaan nag dëggantaan rek waaw snap moom dina am maximum deux cent mille vues deux cent mille vues. waaw vingt quatre heures moom laay am deux cent mille vues xam bi lu mu gën a bari vues di wàññeeku bu dugalee lu ndaw vues di gën a bëri maay la number one di snap euh, loolu lu ko indi dama mëgg nga may ma exclusivité bi. maanaam nit ñi dama leen di won li leen intéressé muy Wally ko Seck moo leen sap mu leen koy won en temps réel gars yi di ma seen en temps réel. mais gis nañu léegi ñeneen sax dañ lay woo. waaw ñëpp may woo may couvrir lu ne en temps réel la xam nga léegi communication moo toll téléphone moo gën a jege télécommande. président de la république sax dégg naa da ngay ànd ak moom di snap. waaw damay ànd ak président de la république di snap di ànd ak ñeneen ak ñeneen di snap. mbir mi nan la la dikkee. foo moom ci dugaloon rek ba mujj nekk dëgg. foo waaw la woon rek ak ak mon ami mon frère le golden boy de la musique sénégalaise Wally Ballago Seck moom laa tàmbaleel di foo di foo ba affaire mujj nekk dëgg. may fàttali ko soo ma doon tëgg ay soirée da jël sa xaalis bopp te boobu yoroo xaalis. dem jënd ay mouchoir di ko jox doomu aadama yi. foofu laa démarré nag ci mouchoir nag na saal mi weex. gars yi naan manquant bi manquant ba mu ba Wally mu ñëw def ni ku complet sama xarit sama doom ndey la golden boy de la musique sénégalaise. man de maa am exclusivité bi tey yal na yàlla yokkal sa jàmm. kontaan yow it nit ku baax nga gis nañ ni ngay jàppale sunu xarit sunu frère Wally Ballago Seck ndax bu dul dara ci yow la démarré wallahi sunu doom la mu dem daal loolu la yàlla dogal. sunu doom la jërëjëf. jërëjëf.